kon ci biir yeewi askan wi mhm. officialisé na génnam waaye mhm. consigne de vote pour ñu defal ko ñi nga xamante ni ñoo di bennoo bokk yaakaar mhm. laata ñuy ñëw tamit ci li jigee ca benno dem ci yeewi alors euh, lii naka nga ko jàngatee ndax analise bi nga ciy def dina bokk ak ñi xalaat ke ni euh, perte la bu mag ci yeewi waaw man de <clears throat> li jàpp mooy Serigne Mansour li mu def daanaka suicide politique la ah waaw léegi man jëf bi bettu ma xawoon na sentir lu mel nii depuis bi ñu jógee ci centenaire u Cheikh Seydi Hadj Malick bi discours yi mu fa tenir mhm. man sentiroon naa ni mm, du ñàkk mu apporter soutien bi mais nag joxe consigne de vote bi bett na ma xam nga li tax. Mhm. Serigne Mansour si Jamil nga xam ni ku ñu am respect ci moom la muy boroom xam-xam di intellectuel dafa am propos yu mu doon tenir ci Benno Bokk Yaakaar mhm. toog assemblée. wax ni président Macky Sall kenn xamul ñu ko topp ñan la. Mm-hmm. mais dans un pays normé normal mm-hmm. normé calibré. Mm-hmm. chef de village sax mënuñ ko fa nekk. waaw ñooñu la joxel consigne de vote tey ñooñu nga xam ne wax na ni chef de village sax mënuñ ko nekk. tey ñooñu la wax tey askan bi pour ñu voteel ko. donc <laughs> doo comprendre. paradoxe nga gis. léegi nag loolu xam nga lan laa ciy jàngat. mooy li ñuy wax naan Khalifa Sall du novice en politique. investiture yi le temps lui a donné raison ni mu ko doxalee boo xoolee ñi mu investiture ñi mu investirul yëpp ci liste bi. Mm. ñu mer à part Bamba Giras ñu ci bëri am nañ position bu radicale boo xam ni amul lu ko mun a justifier en peu de temps. Mm. yow mënoo wax ni yeewi ba bennoo doxul du ñu avenir dëkk bi du ñoom ñoo mun defar dëkk bi. Mm. investiture yeeg léegi matul deux mois en espace de deux mois lan la fi président Macky Sall changé ci doxalinam dara. kon lan moo motiver joxe ndigal bi kon dalay wan ni yeew bi nekk ci woon à fond. est-ce que du liñ ko jox moom moo ko doyul. bur yeewee ah askan même bu la joxee lu doyul man mënoon naa comprendre mu ne par exemple jàppale wu ma yeewi toog mandu wala jàppale leen beneen coalition de l'opposition. Hmm. wala ñun dañuy abstenir. mais en deux mois yow ñi nga doon wax ni duñu li baax ci réew mi waruñu leen sax def chef de village tey ñoom nga joxee confine de vote. dafay xaw a jaaxal xelu nit ñi kon day wane ni xol ba musta jóge ci benn loolu laa jàpp man dama jàpp ne. Mm. Serigne Mansour en politique nag laa wax quoi waxuma statut chef religieux beeg yooyu. Mm. loo xam ne joxuñ ko ko. waaw est-ce que foofu la doore ci bennoo laay wax. moo parce que mm. ci membre fondateur bu Benno Bokk Yaakaar yi la bokk. am na statut yoo xam ne mosuñ ko ko jox. comme. Euh, institution yi nga xam ni moom la ñuy seddoo ñoom leaderu Benno yi. poste mu dirigé. voilà man gëm naa ne am na loo xam ne kon buñ ko ko joxoon du génn Benno parce que la preuve bi mu génnee Benno amul li mu bëgg Yewwi dafa delluwaat Benno mm. espace boobu amul lu fi mag Sall soppi. man nag ci centenaire u Cheikh Seydi Hadj Malick bi discours bi mu tenir. Mm-hmm. santiroon naa ne dana delluwaat. erreur politique la mi ngi commencé payer les pots cassés gis nga ni ba muy génn am na ñu ko toppul. te ñeneen tamit dinañ ko bañ a topp donc man dama gëm ne suicide politique la def. maanaam tey bu ñu jàngatee li nga xamante ni moo di bés du ñàkk la mhm. fait que génn na ci biir euh, yeewi askan wi. Mhm. mënatul koo dese lu bari ci ci ci ci biir langum politique bi. waaw man doo ma ne bés du ñàkk euh, électorat am dana pesewaat lu luur parce que. Mhm. dafa am parti yoo xam ni yenn yenn problème yi wala yenn décision yi day plombé doxalinu parti bi boo xoolee moo dal AFP ci génn. Malick Gakou bi xëccoom beeg Moussa Niass moo dal AGPADS entre Bathily ak Decroix maanaam day dal parti yu bëri après fissure boobu bu amee rek dangay ngay gis tête de file yu bëri duñ préféré génn dañuy préféré rester su ko defee leader bi daanaka coquille vide lay yóbbaale mm-hmm. mais est du problème bi tamit yeewi askan wi la boo génnee gis nañu boo génnee moom dinañ la vraiment euh, dinañ la xas dinañ la ne amoo woon poids te pourtant ba muy dugg tey euh, genre comme analyse bi nga ci def ka ni moom dina xaru euh, ci wàllum politique alors est-ce que loolu bu ñu ko bu bu nekkoon dëgg-dëgg dëgg dinañ ko maintenir ci biir Yewwi Askan Wi parce que gis nañ il a été un bon député gis nañ ci biir nationale euh, comment il s'est illustré tey ku am xam-xam bu ni mel def différentes coalitions wala parti tey jii bu ñëwee ba gis lu mu gis ba préféré wu retiré wu à rappeler que bokkoon na ci ci jamonoy confection liste yi problème yi ci am bokkoon na ñu njëkkoon radicaliser wu par rapport xam nga man dafa lu ma gëm mooy sëñ Mansour. Mhm. mu yeewu ci biir yeewi boo xoolee yëmbal. Mhm. période élection locale yi. Mhm. joxoon na consigne de pour Amadou Hott. au détriment la gaa nu mu tuddati euh, Baara Gaye. Baara loolu bokk na ci charte yeewi. Ah. loolu boo joxee maanaam bokk na ci charte yi nga xam ne moo tënk Yewwi consigne mhm. de vote wala lëkkaloo ak benn mu kenn ku bokk ci mouvance présidentielle bi yow auto exclure nga sa bopp ci biir Yewwi donc sëñ Mansour mun nañu wax ni xëy na statut chef religieux bi moo taxoon sax yenn position yi waaye Yewwi mënuñ ko woon a adopté vis à ak moom mais man dama jàpp ne musul investir bu baax a baax. ci fonctionnement pourquoi dire dem ba ñenn ñi di wax que ni dafa trahir la coalition Yewwi Askan Wi. non man je dirais pas trahir maanaam kii trahir mooy ki nga xam ni sax boo toogoon ak leaderu Yewwi boo leen ko waxoon comme ñu mel ni Khalifa Sall danañ la wax na la ni mu doxalee bettu leen. Mhm. man personnellement am na depuis un certain temps bi ma déggee benn discours am ni mu doxalee bettu ma vraiment man j'avais senti que ni kii ku bëgg a génnaat Yewwi la Yewwi nag bari gu ci mbartal la woon boo xam ni ñu bëri. dañ fa dem uniquement pour redorer seen blason defaraat seen image ngir heure bu waxaale beeg président Macky Sall jotee ñu mën a jaay seen bopp njëg bu cher man. bëri na ñoo eh, xam ne eh, échappatoire la woon wala seen bopp. jaay maanaam boo fa demee xam nga Sonko moom mooy l'opposant radical moo ñoom Barthélémy boo leen jegee président lay bàyyi xel bëri na ñoo xam ne dinañ leen jegee def campagne de charme. au camp présidentiel bu leen président wooye ñu transhumé looloo leen tax a jóg dëggantaan. Mm. mais pas pour taxaw dëggantaan xam nga keroog dama koy wax gis nga Barthélémy Dias ak Sonko mi. Mm-hmm. daaxuñ fi jàng kenn ëppuñ fi diplôme kenn ëppuñ fi formation politique kenn mais dañoo am constance ak ci liñ na mooy metti na contre vents et marées kaso euh, menace de mort lu munte am ils ils son restés constants loolu nag moo commencé fay léegi. homme um politique yu bëri nag dañu am problème boobu ci dëkk bi maanaam taxaw engagé wu na opposant la damay opposé wu. Mm. les fauteuils dorés du palais ñi ko mën a muñ bëriwul de ak dem miir moo fi reeri guddi gars yi ko mën a muñ bëriwul mm-hmm. moo tax souvent rek da ngay gis gars yi dañuy transhumé yow ku la waxoon ne la Mayoro fay waa quitté na wàllu dem na fële bettul kenn c'est-à-dire dañu dëggal li nit ñi doon wax naan PDS bii day dil xoolal PDS bi ñuy wax naan PDS day dil ñi fa nekkoon ñëpp transhumé nañ Babacar Gaye Omar Sarr Mayoro Faye ñooñu ñëpp dem nañ fekk Macky ak Marème parce que miinuñu opposition te amuñu engagement boo xam ne peuple bi dana def bouclier taxaw seen wet parce que mënoo ne da ngay opposé wu toog sa kër at bi duñ la dégg bu élection jotee nga confectionné sa liste ñëw taxaw na da ngay opposé wu moo tax ku mel ni Sonko na président la ñuy liggéeyal parce que yaa ngi wàññi ci li opposition bi radicale bi mën a faire face au camp présidentiel mën a am. Mhm. boo ko wàññee kañ yow kële ngay jàppale. élection bi raw gàddu mais est que nag du paradoxe nag Cheikh Ousmane bu fekkee ñu leen waxee que ni euh, Macky la ñuy liggéeyal waaye ñu génn ca biir yeewi yëpp ca Macky lañ dem. ma ah, jeex euh, baax loolu lañ wax. wallu ak <laughs> yeewee wallu ñoo baax waaye ña ña génnee wallu génn yeewi yëpp Macky Sall la ñu dëgmali loolu du paradoxe. ah xam nga man <clears throat> mooy li ma la wax yeewi bëri na ñu fa nekk te gëmuñ yeewi. ah ah mais yeewi du la wax <laughs> mooy bu baax bi mais pas ñi nekk yeewi ñëpp ñu baax la yeewi bëri na ñu fa nekk ñoo xam ne. ay fii gën a ko warul woon wax yeewi euh, wala ñooy opposition dafa waroon wax man maay man. man maay opposition déedéet déedéet non coalition bi la maanaam coalition bi nga xam ne dafa taxaw pour faire face au président Macky Sall moom bu dëgër bu wér. yeewi askan bi la moo fi mun a jëlee benn bokk yaakaar léegi nag bu fekkee élection bi raw gàddu la. Mm-hmm. yeewi bu amee quarante cinq raw. Mm-hmm. benn bu amee moom quarant yeewi am quarant cinq gagné ko yow nga créé sa liste wàññi ci quarante cinq yeewi askan bi benn ngay liggéeyal. Mm-hmm. ta tamit am na ci nag ñoo xam ne moom clairement Macky Sall leen jox xaalisu caution moo leen jox parrainage loolu am na ci opposition bii et ça date pas d'aujourd'hui. te yéen les preuves qu'il faut wala confirmation parce que loolu bu ngeen ko waxee nag il va falloir ngeen koy confirmer. man bu caméra yi fayee ma jox la ay tur mais doo leen tudd ci caméra. mais am na parce que tamit euh, suscité na tamit colère euh, ñi nga xamante ni ñu ëpp la ku ci mel ni tey Thierno Bocoum bu ma ko déggee moom moo di euh, vraiment bu ñu war a seetantalaatee kan moom mooy gën a maanaam joxe loo xamante ni du bokk ak li mu proposé c'est c'est Ousmane Sonko. il a notamment souligné le fait que bu mu waxoon cumul de fonction du am entre autres. jotul te gis nañ ko ba liste yi demee ba liste yi demee ma nga woon tête de la woon xanaa kañ malheureusement dañ ko seppi est-ce que assumé na ko xam nga <coughs> parce que yi lay wax lay soulever nee bu ko defee ne waaw bugguma woon lii mais xam nga gaayee ma ci puus ba tax na ma def mais dafa waroon bàyyi mhm. xam nga lii olof naan yaa ngi jaay deru xar bi te reyagoo xar bi dafa waroon bàyyi ba Sonko nekk député nekk maire mu door waaye yow fii ñaata tête de liste ñoo fi démissionné xam nga man le problème bi ma am ak mooy yii nii maanaam aar Sénégal ñoom dañoo ñëw ci langue politique bi. Mhm. préférer tirer plus du côté de l'opposition que du côté du pouvoir alors que ñoom dañu wax ni dañuy opposé wu man nag bettu ma. Mhm. xam nga lu tax boo defee sa analyse politique da nga gis ni cenn bokkum bi ñu taxawalee yeewi il s'est dit que ñii amul lu leen di tere jot pouvoir bi. c'est mhm. une très grande coalition danañ am majorité danañ fi jëlee benn mais moom l'après. Yewwi maanaam bu Yewwi accéder au pouvoir Thierno bokkum actuellement il veut se placer comme le futur opposant de Ousmane Sonko président de la République. naka à cause de ses boo xoolee depuis un bon bout de temps Thierno Bocoum xam na ne du bokk ci maanaam table bi grand yi di toog d'ailleurs looloo tax bokkul Yewwi bi quatre grands yi dajee dafa mer. idéologie la la seen idéologie la ëpp épousé wu ko nag. Cheikh kenn googu mouvement la yor agir waaw <laughs> ndax kenn googu war naa toog fi PDS mm. pur taxawu Dakar ak Pastef di négocier mu toog fa di négocier kan lay négocier mouvement la yorul sax parti politique gaa yi dañ ko doon woo dañ doon former seen coalition woo ko mu mu gis ni xam nga tamit loolu sax mm. euh, c'est un legs c'est héritage boo xam ne mm. ñoom dañ ko hérité ci Idrissa Seck gis nga Idrissa Seck ñi mu formé en politique ñu ci bëri da leen a légué rëyam bi loolu daf leen a sonal daf leen gëmloo ni moom comme moom ni mu ko gëmee woon kenn ëpp leen bagage intellectuel kenn mënu leen ci engagement ci débat ci lu nekk gis nga loolu dafa topp ñu bëri docteur Abdourahmane Diouf Thierno Bocoum ak ñeneen ak ñeneen docteur Abdourahmane Diouf lan moo gënoon tey normal mu jël place mbir biir Yewwi Askan Wi ñu bëri wax nañ ko ko pourtant ci ay plateau on aimerait bien vous voir de ce côté mais tout le temps rek mi ngi lay wax na la maa njëkk am engagement Ousmane Sonko Khalifa Sall mi leen njëkk am engagement ñoom ñëpp nangu toog ci ginnaaw di xool Sonko baat li mu di diriger parce que xam na ne du rendez-vous mm. bu nekk rendez-vous génération la bii du génération moom 2014 la woon ak Mimi Touré d'ailleurs sax looloo tax Mimi Touré am problème mu mobiliser Mimi bii du rendez-vous am wax naa ko fii ci benn plateau. Mm. bii rendez-vous ñoom les Pape Malick Ndour les. la mm. génération bi bi gën a ndaw. ay Abdou Karim Fofana mais Mimi Touré mii mënul jox jeunes yi discours bu ñuy dégg. mais on accélère xale yi ko doon rey léegi mat nañ voté donc mënoo indiwaat kooku bëgg mu waxaat ay jeunes yi discours bi du jàll. Mm-hmm. donc mooy li ma la wax ñoom Thierno Bocoum yi mm-hmm. dañuy préparer wu ngir opposer yeewi askan bi bi yore le pouvoir su boobaa gis nañ ne tamit heure tey bu yeewi accédé woon au pouvoir. amul kenn ku mun a incarner pôle opposition. su boobaa ñoom dañ koy incarner pleinement te bul fàtte ne am na loi bu fi nekk bu jox statut chef de l' opposition bu ko jox un budget de deux milliards. Mm. loolu ñu bëri dañ koy bàyyi xel ñoom jàpp nañu ni ko Macky téye tey. bu ko keneen utee du ko téye noonu dana ko jox opposition bi. Mm. donc dafa am ay enjeux future Macky Sall li ko fi dese ay 18 mois la. gars yi ñu ngi ci ay projection wu fii ak deux ans ci kanam. deux mille vingt quatre. Mm-hmm. mais mais mais mais tey euh, ñoom euh, docteur Abdourahmane Diouf dem euh, ànd ak yooyu parce que ñi ngi naan place am mi ngi fa. Mm-hmm. cenn bokkum est-ce que war nañu dem su fekkee ña adhéré woon bi yeewi askan wi duñ ko wax ci kaw nag. Mm-hmm. mais léeg-léeg ñu ruuma naat ko wax ni benn nit moo fa yaakaar ni moom moom c'est lui seul qui fait le <laughs> poids muy Ousmane Sonko. jàpp nañ ni sax le fait que muy dem di campagne du yoon. gis nañ docteur Babacar Diop ce qui s'est passé là jàpp nañ que ni dañ koy minimiser ba yenn ñenn ci ñoom waaye bu ñu génnee sax dañ naan daa waroon ne muut parce qu'il ne fait pas le bu demee ba toog biir Thiès yeewi askan wi moom moo tax donc dugg fa après di frustré di génnaat est-ce que yelluwul nga dem sa boor demal sa bopp. bon xam nga <clears throat> foofu da ngay bañ a jaxase affaire yi. yeewi ñi fa nekk ku nekk jox nañ ko cëram waaye boo yoree poids plume. bëgg takk poids lourd. lii laay waxati foofu xaaral rek foofu la problème bi nekk gis nga yooyu. lii nag laay waxati ñu ne poids plume xam seen bopp ñu ngi fa dee toog na pat amuñ benn problème. Mm. xam nga ñoo am problème bi réew. Mm. ñu nekk poids plume bëgg na pois lour la ñuy Yewwi am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñu ngi cool normal nekk ci mouvement bi di doxal te ñu ngi leen jox seen cër ñu fa nekk poids lourd ñu ngi leen jox seen cër. man gëm naa docteur Abdourahmane Diouf bu fa duggoon danañ ko jox cëram keneen ak keneen danañ ko jox cëram investiture yi. Pastef hmm. amu ci lu ko neex keneen ak keneen amul lu ko neex. Ah, loolu mooy investiture léegi yow docteur Babacar Diop ndax li mu def jàpp nga ne loolu euh, ci élégance sa bopp yaayu borom dëkk bi. Hmm. recevoir Yewwi bi. Hmm. Yewwi ñëw taxaw ci kanamu cortège bloqué sax sa confrère journaliste yi mënuñu avancer gars yi na la déplacer sa oto c'est-à-dire docteur Babacar Diop dafa amoon benn contentieux avec les leaders de Yewwi mu bëggoon ko régler ci terrain politique bi malheureusement en politique moom boo fa bëggee régler problème politique ak violence ñoo ànd. Mm-hmm. il la payé les pots cassés mais c'est malheureux mais man jàpp naa ni. Mm-hmm. kilifa la boo xam ne am na mm-hmm. place am biir Yewwi. Euh, que buñ génnee ci jafe-jafe yi war nañ toog waxtaan ak moom. ku mel ni moom Bamba Girassi Cheikh Bamba Dièye ñun ñëpp am nañ fa seen place. dafa mel ni bañ ak làmmiñ des fois du ñàkk ñu laaloo mais. Mhm. du tere nit ñu focus sur l'essentiel. Mhm. man loolu laa ci ah, alors tey gis nañ tamit euh, transhumance yi moom ci ci côté bi lak ci côté bee. Mhm. Mary Teuw moom moo nekkoon surprise bu gën a mag. ci les uns. donte nekk ko ci ci les autres. alors il a appelé à ce qu'on vote. pour yeewi pour yeewi askan wi. donc entre-temps également il y avait le départ de de de ki nga xamante ni moom moo di euh, alors euh, ki yoroon ONAS. Euh, lancé na Gagny Sakho mm-hmm. également des soutiens de de de taille on peut dire pour yeewu askan wi ñu xam mm-hmm. Macky Sall. Mm-hmm. alors jamono ji ñuy ñëwee tamit yaakaar nga ni dina gën a mën a booster li nga xamee ni moom moo di démarche bu yeewi. waaw Mary Teuw moom dana changer résultat urne ndax deuxième ak troisième. ci kaw premier boo xam ne lu ndaw la leen rawee bu ñu defee blog ñoo koy gagné man Mary Teuw dama jàpp sax ni. yéex na def lim def nii parce que bu yàgg moom wane na ne àndatul ak fonctionnement Benno Mary Teuw dafa bokk ci ñuy épouser woon idéologie Macky Sall un gouvernement sobre et vertueux le peuple. avant le parti. Mm-hmm. du noonu la. Mm-hmm. idéologie boobu noonu tag des biens mal acquis ak servir ou. et ne pas servir. Mm-hmm. servir le peuple et ne pas servir soi bi mu demee ba gisatu ko gis ngeen ni defoon na recul bu yàgg daanaka ci fi boppam ci la nekkoon donc man gëm naa ne waroon na génn bu yàgg. Mm-hmm. Euh, donc moom ci logique la ne rek maanaam yoon bi mu commencé woon tracé la commencé assumer Lansana Gagny itam depuis un bon bout de temps mi ngi def mm-hmm. ay publication yu favorable à Ousmane Sonko. jàpp naa sax ni Sonko yéex na ko seeti parce que publication yi mu doon def ñi nekk Pastef sax defuñ ko ci Sonko. donc yéex na ko seet donc ci logique gu chose yi la ñi nga xam tam ñoo nekkoon yeewi génn dem transfert comme ku mel ni Aminata ja Dia Aminata xam ne ni gëmul woon yeewi. Mm. elle voulait trouver fu mu demee. benn Mbacke également départ. ca Mbacke également. Ah, Mbacke moom beetu moom parce que Mbacke fu tension bi doy waar la fu benn bëgg a gaña la chaque at dana def nu nekk ay centaine de millions la fay dugal pour jéem a récupérer ay nit pour yaakaar victoire. au soir ñu duma ko mm. ñu ngi wax tamit ci soutien bi de taille la mais mm. est-ce que tey bu ñëwee adhéré ci li nga xamante ni moom di yeewi askan wi euh, ndax idéologie ba fa ne parce que idéologie boobu dafay demee idéologie Pastef ko àndoon nag Macky Sall pendant des années mm. est-ce que dina épouser facilement li nga xamante ni moom la fa euh, yeewi di proposer ah, xam nga bu fekkee ni yow ci Macky Sall nga nekkoon xëy bi gis ni système bi doxul mm-hmm. système bi mm-hmm. du bu baax bi mm-hmm. bee mooy bu baax bi boo ko ah. demee tu es le loolu day renforcer rang wu yeewi rek yeewi fi mu toll nii ku jógee ci benn ñëw ci moom nekk une réalité politique nekk nit ku set toppuñ ko ci benn dossier détournement wala épinglé ci cour des comptes parce que loolu tam foog nit ñi baaxu xel mm. dañ préciser ni képp tout tout leader est bienvenu sauf ñi nga xam dañ leen épinglé ci ay cour de comptes ak ok am na benn jour muy toon sax naan président Macky Sall bu génnoon benn ñëw yeewi il est le bienvenu donc. Mhm. en politique rapport de force day joué lool da leen di jëriñ rek. Mhm. te te te bu ñu gisee. transhumé tamit bu ñu mhm. fàtte ne nekkul ci oppo nekkul ci pouvoir jëm ci opposition transhumé mooy jóge fu metti dem fu neex. opposition neex mais transhumance transhumance la. waaw mën ngeen ko tuddee noonu mais looloo tax ñuy wax parce que tey il reste li tax ñuy wax transhumance. mooy il reste te gis nañ ñi génn pour wax Benno Bokk Yaakaar lu néew la. dem nañ bay kaas ci seen biir que ni ñu ci bëri nanguwuñu wax parce que ñu ngi projeté wu ci xool 2024 ndax euh, yi day demam déet donc jamono jooju yow boo koy waxal lan nga koy waxal sabar bu taf ñi ngi reyante seen biir ñu ngi dóorante xeer jubóowutuñu kenn xamut lan la seen armée mexicaine boo xam ne mille général la xoolal biir APR rek seen armée mexicaine biir Benno Bokk Yaakaar seen armée mexicaine kenn xamut lan la Macky Sall pare wut a jël responsabilité am ne yow yaay numéro un yow yaay numéro deux non non fulul total la bàyyi ku nekk sa généralu bopp nga man xam naa ñoo xam ne seen conférence yi mooy période investiture yi ci la ñëw joxuñ leen kàddu ñu gedd kenn xamut bennoo lan la loolu leen di wax eh, ñu gis chaise di tàkk loolu waaw yow lan nga leen waxal dangay ñëw taxaw wax lan ci vas t'exposer ci loo xam ne kenn xamut ëllëg luy am mais mi ngi fépp ah. <laughs> ñu taal ci coalition yëpp. waaw mais Benno moom daf cee raw xam nga le pouvoir bu yàggee. Hmm. gars yi dañuy enrichir dañuy dem ba bari doole. buñ ñu tollee fii ku nekk sa lieutenant bopp ngay bëgg nekk lii moo daloon Ablaye hmm. fin ba ku nekk ay ténor ku nekk taxaw na man la man la saa yu parti au pouvoir accès fii rek mooy fin am hmm. parce que kenn dootul nangu engagé wu ngir parti bi sa intérêt rek a lay tax wax parce que ku nekk yaa ngi calculer lendemain bi lan lay nekk Benno foofu la toll fi mu toll PS da leen sentir ci élection yi AFP da nga ko sentir hmm. à part docteur Malick Diop da nga dégg fenn AFP hmm. Idrissa Seck da nga ko gis seen Mburok Sow mi ñu waxoon ni mooy mooy yokk <laughs> mooy yokk mbir mi ca ca ca Thiès na bu yàgg <laughs> mais euh, Cheikh bi ci ci discours ñu ñëw ci discours euh, Ousmane Sonko franchement mhm. parce que gaa yi dañ koy euh, dàkkan gàttantalee que waaw saa bu waxee rek toj kaas yi mhm. Vélingara moo ci topp démb dégg nañ benn wax bu mu wax voilà Ah, waaw kay yow dégg nga ko buñ leen bañee jox seeni carte toj leen préfecture yi buñ leen nee kan moo leen ko digal nga ne man la Ousmane Sonko mais yooyu noonu est-ce que du du du du du gën a euh, lëndëmal wala boo ko euh, yokk euh, doole nit ñi lañuy waa tamit waaw d'abord ñaari jàngat laa ciy def mm. lan la bu ngeen demee di jëli seen carte ñu bañ leen ko jox waaw waxul bu ngeen demee jëli seen carte. te na ngeen assiégé préfecture bu ngeen demee di jëli seen kart ñu bañ leen ko jox mais sur quelle base la ñuy taxaw ngir bañ a jox nit ñi seen carte xam nga loolu du yoon. mais loolu amagul. waaw xaaral rek non enquête xale yi dañ ne bëgguñ ñu jox dem nañ di jëli ñu bañ loolu am na am na zone yoo xam ne bu état bi sentiré ni du fi gañe du joxe carte yi. Mm. ñu ngi koy def Touba ku indi dix carte ñu fay la xaw ma ñaata mil bi may ñëw maa ngi koy dégg live ñu koy wax. donc mooy ki nga ko seqal deful yoon. Mm. ki wàcc yoon nag lu ko dal rek moo moo ko teg boppam beneen bi discours bi Sonko di tenir xëy na ñiy wax nii soit day nekk samay morom wala ñu gaaw a fàtte ci politique. Mm. mais du lu bees. Mm. wàdd bi mu koy tenir boobu ñu ngi nekk xale di daw naan soppi soppi. Mm. discours bi Sonko di tenir démb maa ngi koy wax bi ma dégloo discours am bi bi muy artu ñoom Mame Boye Diao. dama ree na wàdd daf may fàttali jamono ñii daw ci ginnaaw góor gi soppi soppi même discours la. maanaam xam nga politique dafa am temps wu discours pacifique am temps wu discours virulent boo ko deful dañ lay buraay dox sa kaw boo fi nee rek toog na yow tu es passif na am na am dañuy dox sa kaw léegi jàll. mais mais discours quand même contexte xam nga Sonko bu teniree bu passif. Mhm. bu fees dell xam-xam. Mhm. gars yi duñ ci commenté. gis nga discours wóor a soogi bi la presse da no snobé te pourtant suñu discours historique. mais bu ne sànni leen. mais tamit su soo su soo lay nekk. mais mais du propos yu ñuy faral di war a mën a jël jël avec ah, des pincettes. lépp rek ci cadre politique lan moo ko dañ koy déglu. mais xam nga ci politique bu dee génn leen suba ngeen ñëw ñu rassemblé xale yi dañuy génn quand xam nga tey sànq. romb na zone yu bëri ñu sànni ko ay xeer attaqué cortège am gis nga discours bi mu tenir. Mm. su ma ne woon xale yi dem leen taali kër ñoo ñu taal ko mais duñ ko def. Mm. c'est-à-dire benn affaire foog ñu bàyyi ko xel Sonko la plupart du temps bu discours am dëgëree wala actam dëgër ak réplique la am na lu ko précédé maanaam bu jug moom attaque souvent position défensive lay nekk mooy dañ ma mooy dañ koy attaqué mu défendre nag d'accord ni muy défendre woo mun na dëgër trop mooy li mu wax moom dañ koy tooñ dañ koy topp ba ci miir bi mu dëpp song leen ñu ne il veut brûler ce cest à souvent rek bàyyil xel discours am yëpp rek mooy suñu leen buñ leen defee suñu defee maanaam du attaque tout le temps rek position défensive au nom de quoi mm. nit ñi tey carte électeur nit ñi bañ leen ko jox yéenewul maanaam parce que zone boobu parce que zone boobu yow doo fa gañe rek nga ne carte yi doo ko joxe mais mais tey waxam yooyu dañuy dem ba mettre ko en corrélation avec euh, yi mu tëniiroon fële ca waaw ah, place de l'Obélisque ba mu ne bu ngeen demoon tey ji daj seen kër yi di ngeen fa fekk seen ay milliards waaw loolu lapsus rek xam nga Sonko du yabal kenn kër xale na leen dem leen daje loolu lapsus day dal nit ci làngaay Sonko nit la nag nit day juum day mel ni ce sont des des des ndigal yu ñuy joxe indirectement su doon joxe ndigal day wax booy dem leen dajji kër man xam naa ne dëggu na dëggu boo xam bis bu bëggoon dajji kër yi ay kër diw ak diw très sincèrement parce que Sonko loo ko mën a wax mooy moom il assume gis nga lu mu leen wax bu ñu ko dajjee bu ñu leen nee ku leen ko digal nee leen sonk gis nga moom il assume Sonko du làq-làq léegi nag man xam nga fan laa bëgg ñu taxaw pourquoi moom quand on l'attaque nit ñi duñ wax xam nga tey ku mel ni sonk ak caravane ak ful bi mu drainer Kolda. Mm-hmm. nit ku bëgg jàmm du ko attaqué. Mm-hmm. te attaqué nañ ko ñaari yoon. sa à dire des fois foog ñuy les responsabilités. yow naka ngay toogee nekk benn leaderu koñ gis Sonko fulam bii. Mm-hmm. nga ne da nga koy attaqué ba pare nga ne yow nitu jàmm nga. man moo doon Macky man maay wax ak suma nit ñi parce que gis nga dëkk bi bu tàqee duñ na Pathé duñ na Idrissa magistère u Macky Sall la ñu wax Macky Sall moo moom traversé du désert moom la ab lay Wade dàq persécuté ko mu jàll fi mu jàll ba nekk président. falwa 65 pour cent am parcours bu rafet bi muy accéder au pouvoir warul nangu benn fulaa fulaa di ko ko mm. yàqal. ñoo xam ne amaana sax bi mu koy ut ñu ngi toog ci ci côté Wàdd di ko xas ñooñu ñoo ñoo ñëw tey bëgg a salteel cerem bi foo waroon moom du ko nangu. mais moom on a entendu du certain leader ñu ne du ñu bàyyeeti Sonko lim leen di wan lu mu leen jaay danañ ko jënd. fu ñu koy jëndee parce que ay jeunes lañ ko moom. fu mu fu mu ñëwee itam anam bu mu ñëwee dinañ ko fa xaare ñoo ma ñaan a koy jënd. <laughs> est-ce que est-ce que c'est loolu amuñu ñetti nit naan dañuy jënd coow le ana Farba Ngom lu mu waxoon boo duggee añ boo duggee Matam nag ma prévenir rek wax ma ban jour. Mm. yéegal enchaîné anamu. c'est-à-dire gis nga man moo doon. tontu na de nee na Sonko jaarul fépp nee na il a fait le tour soo a soogi kese du Matam. mu da gis nga ñooñu. c'est pas la peine daal wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñun ñooy créer problème yi. Mm-hmm. ñooy yëkkati discours virulent yi créer benn tension alors que au final dañuy daw xoolal manifestation yi fi am yëpp deuxième vague du fi am on fera face. Mm-hmm. kenn du ci génn. dañuy wër plateau télé yi wax ba dëkk bi taax le jour ji day mel ni newuñu Sénégal. ñooñu arrangé wuñu Macky Sall. yow leer na leen les événements de mars ay nit a ci xëpp. ñoo jël. nun koy waxee safara si xëpp ci pétrole mu gën a tàq mhm. yëf yi tàq ñu daw kenn xamul li ñuy def en fait. mais est-ce que du ce que du euh, dañuy jéem a répondre ci ci ci li nga xamante ni moom la ñu jàppee ay attaque ñoom bu ñu buggoon répondre bu ñu répondre euh, moment la bu ñu war a riposte bu demee ba président Macky Sall gis na ni que ñi ko war a défendre wane li nga xamante ni moom moo di bilaawam également defuñu ko. ñoom xam ne fu ñu doon défendre président. Mm. wàcc sur le terrain jege askan bi di wuy seen téléphone yi. Mm-hmm. yittewoo soxla askan Macky Sall ni tamit kenn du ci wuyu appel koo woo du la jël journalistes yi dañ koy kaas homme d'affaires yi dañ koy kaas mm-hmm. secteur bu nekk dañuy kaas yi ni tamit ils sont injoignables kenn du leen jot buñ paree toog seen kër bu élection jotee nag ñu dem uti ñun ñëpp ay casquette mm-hmm. topp dëkk bi di wër mm-hmm. sol seen tenue yooyu buñ fawee ne loolu élection nax nañ seen bopp de ah, élection nekkatul ay convoi sol casquette di wax say wax de mais mais tey euh, cheikh bi naka mënoon nañu mën a jàngatee tamit lu jëm ci discours yu ñu fournir maa ngi suba ba léegi yenn ci ay média di vaar euh, tey ki ki ki jiite campagne bi mu ñu Sonko alors euh, la mu waxoon que ni fii lii defal leen lii waxul dëgg tey ñu dégg ko mu ne dund bu cher bi gis bis boo leen ma ah, falee. bu ñu amee majorité. Mm, waaw ah. moom mu dakk ci réew réew mi loolu tamit euh, kàddu yi waroon na foofu noonu. waroowul te te te te te ñëpp xamees nañu ni euh, tey euh, li nga xamante ni moo di discours bi futur député bi war a tenir moom moo di que buñ demee foofu loi yi fa am daañu ko càmbat entre autres point yoo xamante ni moom moo bokk ci seen ci seen rôle en tant que député. xam nga yeewi ñoom waxuñu député ñoom dañoo bu ñu amee majorité Sonko fële député la waxoon député mënoo toppandi daara ci dëkk bi mu ngeen ma falee ma defal leen tali. Ah, majorité mooy lan. waaw ah, mooy tey ñoom bu ñu amee majorité. Mm. ñoom dañuy am benn cota ci gouvernement bi déjà ñooy fal premier ministre à part ministère euh, souverain yi mooy affaires étrangères ministère de l'intérieur. Mm. forces armées ak xamutuma ban. Mm-hmm. ñoom ñoo koy tànn. Mm. su boobaa ñu ngi ci gouvernement bi. premier ministre donte c'est pas le premier ministre qui définit. Euh, le Mhm. maanaam direction bi bi gouvernement bi war a jël mais moo koy exécuter te day ñëw assemblée mun nañ koy convoquer assemblée muy rendre compte majorité bi mun nañ créer ay commission d'enquête maanaam mhm. tey bari na problème yoo xam yee bu ñu amee majorité dañ koy mun a régler mhm. ressources naturelles yi ñuy jaay tey dañuy créer commission d'enquête saytu ministre am nañ droit toog gis ni diw mii amamam wute na lool ak liggéeyam ñu créer commission d'enquête saytu ay mbiram saytu lim am ak yooyu donc loolu mën na ne créer projet de loi maanaam ca taxe ci fiscalité teg yenn taxe yi ci yenn produit ci yenn denrée de première nécessité yi xam-xam la wax de li tax Mimi Touré daw débat bi bu toogee day perte de <laughs> boo ci boo woon benn économiste teg ko fii da leer na la li ñu wax lu leer nañ la mm. d'ailleurs gis nga ku mel ni ngudu mbub publication yi mu ci def mm. donc yeewi programme la ñu am xam nga man j'aurais bien aimé benn di tontu yeewi indi seen programme mais Benno ñoom dañuy xaar Yewwi diriger la barre ñu topp ci di këram këram xoolal Sonko bi mu leen waxee yenn opposants yi ne leen Macky Sall la ñuy liggéeyal banañ seen programme. Hmm. ci nu ma nga ca fat fépp ak moom <laughs> ci wër fa kenn xamul c'est-à-dire. stratégie parce que nag dafa dafa dafa titiller li nga xamante ni tamit. moom léegi ñoom ñëpp fi mu toll nii ci la ne Sonko Sonko Sonko du candidat. bokkul mais c'est l'homme politique le plus présent. te loolu ngaa ñi nañ ko la fait que nekkul candidat également. li nga xamante ni moom moo di campagne bi mais est-ce que du loolu tam du leen gën a tuutil parce que jàpp nañ euh, euh, tegg tuuma également du ragal. Mm-hmm. tamit bu ñu ñëwee ne da nga lekk xaalisu gouvernement bi te te opposition bi ci des yépp nag la ko waxal du ñoom c'est que aar moo gën a jël les devants di tontu. xam nga Sonko dafa bind lettre sànni ñu jël lettre ku nekk taf ci turam man bu ma doon ku ma nit interpellé na ma li Sonko wax ma leen maa ngi xaar mu tudd ma jeex na Sonko chaque jour nit interpellé ko ci dara da ngay gis mu tontu du ci tontu day focus ci lim ne ñoom noonu la ñu waroon di focus ci lim ne ñoom ñoo may tollee sax waxu Sonko bi wax bi mënoon na passé inaperçu aussi aar wolof day wax ni nit ki boo ñu la fayee sa bor nga mer mooy li nga leb la baaxul aar période investiture amul lu mu fi waxul yeewi dealer politique dañuy dil ñoom ak bennoo parce que parce que bokkuñu bokkuñu doxalin. et puis bokk ñu gisin tey est-ce que du leen jox raison bu ñu gisee ñenn ñi comme sànq ni ma ko waxee ca ca ca bennoo lañ dem de ñooñu taxul ñuy wax yeewi di yeewi moom ñi tax ñuy wax yeewi xam nañ leen ñooñu bés bu ñu demee ci bennoo ñu door a gëm leen politique daal soo bëggoon encaisser ay coup bul joxe ay coup aar da doon joxe ay coup donc nañ encaisser ay coup barki dem juge dem amul lu mu fi waxul Maître Wade hmm. Thierno Alassane Sall plateau yëpp wër na ko attaqué yeewi seen manifestation lu ne aar action yeewi la gën a focus sax action Benno donc yow bul bul mer bu la yeewi delloowee liñ ko lebal politique la mais le cas Pape Djibril Fall également mm-hmm. est que fi ñu ko yóbbu waroon na fa mën a yegg gis nañ réponse bi mu def mm-hmm. il désolation la am tey ba mu mm-hmm. déggee que ni mu ne Ousmane Sonko réellement moo wax li mu wax te fu ne taxawal na ko jamono ji mu jàppee ni eh, état bi da doon ko doon jaay doole jamono eh. jooju est-ce que tamit eh, porte bii nii ñu ñu ñu ko jëmee jaroon na ko. bon Pape Djibril danaa ci wax mais tey lay nekk dernière bi. parce ah. que mujj bu yàggee sax nit ñi dañuy foog ne da nga am problème ak ñun. Hmm. Pape Djibril Fall moo tooñ boppam. si naka. Pape Djibril dafa xëy bis na day politique parce que am na benn capital de sympathie autour de lui bu am solo. mais capital sympathie boobu dañ koy mun nga ko diviser en trois groupes ñu topp Pape Djibril pour son discours véridique di ko béggee kii discours bu véridique bu engagé la ñooñu benn groupe la am ñi ko topp ci dañoo gis ne Pape Djibril discours am dafa xaw a jege bu Sonko ak les patriotes seen combat bi te ñoom ñu wéet ci ñu gis ko muy beneen groupe beneen groupe bi nekk ñi nga xam ni ci pas-pas lañ ko topp dañoo gis ni c'est un exemple taalibe murit di tudd mag ñi comme référence. Mm. bi mu duggee ci politique ñetti groupe yooyu Pape Djibril ñaar yi daanaka doxoo xaw a perte carrément mooy ko toppoon ci discours véridique bi bi mu amee problème ak Amsatou Sow si di ba wax waxeet bi bi maire bi génnee lim leeral aussi nit ñi xam ni demeewul noonu am ci ay preuve yu leer sax ñooñu am na lu mu ko wàññi lu bëri gis nañ ni kii kat dëggoom des na bu doon. benn homme politique bu vicieux bu véreux bu tilim parcours la amal problème boobu dañ koy gëm mm. mais professeur Amsatou Sow Sidibé loo set set set mu gën la set mm. loo nekk nekk référence mu gën la nekk référence bu ngeen duggee ci logique boobu ba mu brandir plainte ba nga jaar ci suuf ñëw baalu ko day wane ne yaa tooñu mm. loolu dagg ci coefficient am tuuti mu dugg ci politique discours am auto bu ñoom Sonko gars yi di tenir benn bataay mu ne tekk yaa ay gis ne solidarisé wul ci ñoom bokkut ak ñoom bataille mu ŋàññi sax ñoom ni ñuy politiquer mu pertaat foofu te ñooñu bokk nañ ci ñi may Pape Djibril Fall bës bu baax a baax donc Pape Djibril lan lay dese te loolu sax moo feeñ campagne am fa la gën a xumb Touba mooy ñi ko topp ci pas-pas Pape Djibril c'est un morné en politique beneen bi dafa quitté le plateau Pape Djibril tey bu dul temps d'antenne nit ñi fàttewoon nañ ko dafa teel a yàq ceebam. Pape Djibril dafa waroon continuer ci plateau yi continuer ci plateau yi xëccoo local comme l'a fait Ahmed dara wala ndoy Bane jot moom zone bi mu dëkk di togg mbiram ndànk nànk mais est tey lan moo gënoon nekk démarche. Mm-hmm. mu intégré woon Yewwi dugg service dem nekki député nekk assemblée di ah. def son travail. Ah. di waat loolu mooy problème bi par force il faut nga bokk yeewu askan. non non bu bi nekk ki gën est-ce que loolu la ñuy jàngat. tamit tamit déedéet kenn imposé wu ko yeewu mais par Djibril boo bokkul daal. non pas non non du. yaa ngi Macky déedéet du ñu bokkul yeewu rek am na ñeneen ñu fi nekk bokkuñ yeewu bokkuñ ci Macky nekk ay nit yu engagé am pôle mais da xam ne amuñ avenir demuñ fenn c'est-à-dire Pape Djibril dafa soloon mbubb maanaam man laa koy waxee. Mm-hmm. dafa fekk géttu xar bi. Mm-hmm. mu dugg sol mbubu xar te bëy la. bañ na xar la mu summi mbubam nekk bëy xar yëpp tur na xool ko dafa tëniloon benn discours boo xam ne dafa meloon ni moom. Mm-hmm. le pro Sonko wala les pro les patriotes. kay leeral na ko nee na da ko doon soutenir parce que jàppoon na ni nguur gi da ko doon jaay doon kese Sonko dafa am benn vague buzz boo xam ne ku bëgg percer da ci surfer mus soutenir wul Sonko boppam la doon soutenir maanaam le peuple était wax ja doon wax ba ñu naan moom la moom la tey da ngeen teg côté bu na leen man musuma non non doon waxee que ni moom la parce que mu ngi soutenir Sonko mu ngi tenir discours yoo xamante ni favorable na ko tey ba mu demee ne les serviteurs la dem àndut ak yi ba tey lu mu dégg nga Pape Djibril bu créé woon mouvement am nii rek toog mais du am problème ak yeewi mais da leen a dafa génn na ñii li ñuy ŋawti ŋawti je reprends même ces termes. Hmm. seen ŋawti ŋawti gi ñuy def lii ci seen liste. doon na ma neex ñu koy def ci bu dund bi chéré ci bu gaz yokkee ci bu ñàngu xale yi nasaxee ku mu bokkal liste moom mooy la gaa nekk euh, émission Ndoumbelane. Mm-hmm. génn tontu ko nu ko mm-hmm. nu ko ñii li ñuy xeex foofu la ñuy réglé li ngay wax ni. professeur mm-hmm. waaw. na li ngay wax ne loolu nga bëggoon ñiy woote ci xale yi. foofu lañ koy réglé mooy assemblée beneen bi xale yi ñii reyuñ leen c'est-à-dire même bokk ak moom lis identifié wu ñu seen bopp ci discours bi mu tenir léegi nag loolu benn fee la woon. Mm-hmm. dafa waroon jàll mais Pape Djibril dafa continuer taxaw ci fee boobu. def ay sotti mën a ñii bokk ñu référence man mag ñi tudd Cheikh El Khadim lu bëri cest à comme que yow da ngay jël ñii dóor leen devant l'opinion. mais nañ ko nangul style am wala stratégie mais yow jëlal sa style ci sama xam nga lu bon nga takk say verre yu rouge. na ko takkul vert rouge baaxul Pape Djibril loolu la xaw a def xam nga fekkoon dafa takk ay vert na man vert rouge daal laa takk ñoo nangul ko mm. mais def ci pare moom di wax ni ñële mm-hmm. ñun jël référence du ñaay référence ñun doxee waruñ waruñu woo xale yi ñuy wàcc tali bi di dee comme si que yeew yi dañ jël xale yi teg dee na leen dem leen dee. et c'est pas lui seul ku ku ku jëloon boobu discours Thierno Alassane Sall jàppoon ko ne jamono dañoo ah. war a sax baalu àq ñi nga xam te ne ñoo di askan wi. ah léegi nag yow wax nga wax maam Pape Djibril bu demee ba discours am duroog ñi nga xam ni àddina juróom-ñaar lii di juddu tey sax xam ne ne c'est des ennemis de sonkoo et de Yewwi donc y' a problème Pape Djibril moo changé discours Yewwi seen discours gi mu newoon na ba tey <laughs> moom moo jugee fële fekk si fii Yewwi soppeekuwul de Pape Djibril la soppeeku Yewwi fañ rek fële ne Ousmane Sonko calam newoon ñu naan dafa virulent dafa dafa violent cala na ba tey foofu ñëw fii. est-ce que jàpp ne dañ ko bëgg a rey politiquement. parce que acharnement lañ dem ba jàppee li nga xamante ni moom. moo am ci kawam moo rey boppam soxna si ñu bëri yéene nañ ko jàmm man j'aurais bien aimé mu percer réussir mais Pape Djibril moo def ay erreurs c'est-à-dire man comprendre ma sax man stratégie de communication ni nga ko defee déjà sortie bi mu defoon ci démentir am sa dosaw sédd bi erreur stratégique loolu loolu. man bu waroon moom bu polémique amee du ma def conférence peut dem seeti bi. waxtaan ak moom génn na leen diggante yaay ak doom la réeroo la woon waxtaan nañ jubóo jeex na on passe à mais mag ba suñu aada bon dafa jub mais na xoolaat posture am rek. malgré que mu waat ni musul lekk xaalisu mag Macky Sall. non man. malgré également ko si dernièrement ba mu def benn entretien ci seen web di wax que ni mm. benn dénominateur comme lañu am. ñoom mm. opposition bi ñoo bokk lu ñuy xeex moo di i Sall jóge fi ak mm. mauvaise gestion éclaircir na ko te indiwaat na ko. ci ay kàddu non personnellement man Pape Djibril Fall li ma gëm wax naa ko. Ah, bi yëpp Macky leen créé. kon kay lekk na waxu sax daf na am na ci ñoo xam ne bu élection jotee. Mhm. Macky da leen jox xaalis jox leen parrainage ñu dem. Mhm. am na nag ñoo xam ne bu ñu créé liste. dañuy mhm. affaiblir. bi mun a soppi Macky. kon yaa ngi liggéeyal indirectement Macky. mais Pape Djibril man accusé wu ma ko lekk xaalis Macky man li ma wax. mooy man suma xel dafa tey ci lan moo waral engagement bi lan moo ko motiver ndax dafa am ay hommes d'affaires yu nekk ci ginnaaw ndax dafa am ñu bëgg a casser benn dynamique yu nekk ci ginnaaw ndax dafa am ndax dafa am man loolu laa posé woon ay questions. mais mm. pas que pro Macky. Mm. man loolu laa waxoon ci engagement maam lan moo motiver mm. engagement bi. man loolu laa waxoon. defe naa leer sama xel. te ba léegi leerul sama xel. man loolu rek laa ci mais je n'ai aucun problème ak moom wax dëgg bu ma sañoon mu réussir parce que jeune la. Mhm. ku am engagement la moom moo def ay erreur am na xoolaat boppam rek après on passe. waaw ah, yéen a jàpp ne erreur yéen ko jàpp <laughs> alors euh, ñu wax ci leneen euh, Cheikh Ousmane euh, parce que ki nga xamante ni ginnaaw gis nañ ci di 17 juin bi ñu weesu. Hmm. manifestation yi drainé woon na ful. Hmm. waaye tamit day nit yu fi faatu. donc hmm. ginnaaw ñeent fukki fan di quarante jours yoo xamante ni def nañ ko ci morgue hôpital Ziguinchor boobu. gis nañ Idriss Kam waaw Goudiaby fi nekk nii moom ak kii di Alex Diatta dinañ leen respectivement denc kenn ki vendredi kenn ki samedi mm-hmm. alors euh, ginnaaw bi sax euh, bëggoon nanu sax euh, def procureur bu Ziguinchor beneen troisième lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di autopsie voilà mais mujjuta am ñu fas yéene leen denc noonu ci biir fulu mm-hmm. ba tey ci ci ci seen njaboot yi leen jur mm-hmm. alors naka nga jàngatee mbir yi na mu mujjee ah, leer naka contre expertise bi leeral leeral donte wax nañu chemin bu kenn xamul la. mais leeral na ne bala ko rey. xam nga état bi lu mu njëkk forcé mais ba mu téye néewi jàmbur yi na du ko joxe loolu la njëkk forcé yow munoo bu normalee nga joxe néew bi fii nga ne normal na ba pare téye néew bi bi état bi téye néew bi di ko gaare rek ñoom ci lañ forcé lépp loolu mm. benn la mm. beneen bi. bi famille bi waxee dañ bëgg def benn contre expertise mhm. procureur dafa waroon accepter loolu dana gën a dalal xelu ki nga ko séqal mais bu fekkee dañ ne prip yow nga raté sa départ pour après nit ki am confiance dafay jafe procureur yi foog ñu xoolaat seen sortie yi mhm. parce que heure bu ñu demee ba ñoom bu ñu waxee askan bi dafay dese gëm liñ leen di jox euh, ci seen récente sortie yi war nañ xoolaat ñoo ak seen staffu communication nan la ñuy waxee askan wi loolu benn la beneen bi nag mu nekk lu metti mhm. nit ki dee la mhm. loolu benn naqar la mhm. nga téye néewam prolonger naqar bi munoo ko wax lan moo ko rey maanaam da nga wañ loxo famille gis nga bi fa waa yeewi demee li leen wax bis bu nekk dëgg la suñu ba léegi jotaguñ suñu koor mënaguñ leen ñaan déjà ki génnaat na rek dañuy wax ne buñ ko teelee denc loolu yërmande la nga téye ko combien de c'est-à-dire loolu rek benn metti la mooy li ma la wax. Mm-hmm. Euh, foog justice ak administration am seen calendrier boobu bu uteeg calendrier wu politique buñ ko deful rek rapport de confiance bi seen diggante ak askan bi day laj mm-hmm. te askan bi heure bu demee ba gis ni moom fi mbax ne doonee benn. tey bu ma la tooñoon tey fi nga yaakaaree ñu jox la sa àq boo demee ba amatoo fa yaakaar da defal sa bopp justice te loolu. dañ ko war a éviter bavure day am fu nekk day am ci réew yu nekk. Mm. chaque jour nga dégg ko États-Unis chaque jour nga dégg ko France. Mm. mais na justice dox ni mu war a doxee situer les responsabilités mais pourquoi vouloir protéger coûte que coûte ba def l'impossible loolu la nit ñu comprendre. da nga koy jàngat ci lii. le fait que ni mu nu mu mujjee 41 jours. wala 42 jours léegi après dara. maam da ngay gis ni. Mm. doxalee ne justice wala administration bi de manière générale laxasu ci calendrier wu politicien yi comme si dafa am benn camp bu ñu far alors que ñoom waruñu far dañu warul neutre. mënoon hmm. nañ bañ a àgg fii yëpp. nit ku nekk nga jox ko àqam ki dee nga jox ko àq bi kiy dund nekk en détention nga jox ko àq bi ki nga jàpp war ko interroger avocat mi war ko fekkee comme norme UEMOA mais yu yëpp boo ko bafouwee mais après rapport de confiance bi dañ koy rompre seen diggante ak askan bi boo xoolee léegi administration bi Sénégal loolu moo leen commencé dal. Hmm. rapport de confiance bi digganteem ak askan bi bëreetul bëreetul léegi officiel administration buy wax. Hmm. askan bi gëm la loolu c'est très dangereux. ku ci def sorti bu ñu paree ñu ne taxañ ko fële ne ah. waxuñ sànni moom kat wax bi fii lay dugg di génn waxul c'est comme la sortie bu procureur bu Ndakaaru ak. bi nga xamante ni moom moo di. tey bu procureur tegee loo xam ne sax hmm. lu. lu alarmante maanaam lu nit ñi waroon baaxee la sax nit ñi dégluwutuñ la xam nga looloo daar kee war a avertir nit ñi euh, ci danger su demee ba bu waxee nit ñi duñ ko déglu. Mhm. loolu musiba la te foofu la réew mi commencé toog. attendre leen woon euh, maanaam ñu leeral mbir yi comme il faut parce que mois de mars y avait quatorze nit yoo xamante ni faatu mhm. nañ. Mhm. ba nag ni si France daal di xëndee margré mémorandum yi malgré euh, commission d'enquête bi entre autres gisuñu fan la fan la mujjee ndax tey jii lii seenoon ngeen ni dina am également ci ci ci euh, les problèmes. waa man moom personnellement man xaaruma ci benn manifestation ci réew mi nit ku ci dee. Mm-hmm. enquête bu leer situer responsabilité parce que Sénégal tàmmaluñu ko ñaata ñaata étudiant dee fii université mm-hmm. dama mos a gis ñu situer responsabilité yi ne mm-hmm. te loolu lu yomb la xoolal gis nga policier yi bu ñuy génn ku ci nekk dafa am temps rechargeur bu ñu lay jox chargeur boobu dafa am temps de balle bu ñibbisee ñoom ñëpp dañ koy delloo lu yomb la ku nekk ngay jël armam génn chargeur yi compté xool duy bu nekk chargeur bu nekk ñaata bal lay def bii 34 bii 9 nga xam ki tiire kan maanaam c'est pas diabolique lu yomb la li gën a yomb mooy xam ban arme homme de tenue en service moo tiire loolu lu yomb la mais xola day mel ni puso lañuy ñuy seet ci maanaam ci stade dugg na fii génn na fii commission bi dig déglu na leen woo na diw furaas te di gis nañu pour communiqué yi njëkk a génn oh. dañoo seetaloon nañ ñi nga xamante ni eh, ñoo nekkoon homme de tenue yi nekkoon sur le terrain également que que laale wuñu ci faat yi nga xamante ni moo jot a am waaw léegi à quelle vérité se fier mais est-ce que nag du du conséquence su manifestation yi li waral yenn politique yi di wax que ni. Euh, dañuy woo xale yi ñu daal di ñu faatu bu ñu paree euh, politicien ba moom yoonam du ca ne njabootam sauvé na moom tamit dara loo xamante ni eh, dina ko gàllankoor. duñ ko gis xam nga discours boobu c'est dangereux. Hmm. maanaam bu ñu demee ba gëmloo nit ñi ne manifestation mun nga fa dee. Hmm. manifestation constitution bi moo ko jox maam droit la boo xam ne constitution moo ñu ko jox. Hmm. manifestation dara boole koog soo ma waxoon na ma guerre ga ku fa nit ñi mën nañ fa dee waaye manifestation. Mhm. bu ñu demee ba Sénégal bu ñu nee manifestation nit ñi ne teeleen seen doom yi da ngeen di dee muy réew mi démocratie ñëwatu fi manifestation ne rime pas avec la mort. mun nga wax sax dóor mais buñ demee bañ na buñ nee manifester ñu ciy teg mooy ku fa dee yaa perte. ay ay tiir di jógee fu ne di. soqe ko am nañ recul démocratique gu doy waar. maanaam buñ nee manifestation ñu ciy teg mooy ku fa dee yaa perte. Mhm. loolu recul démocratique la te. du woy bu rafet ci ndoddu nguur gi fi nekk rawatina président. Mhm. alors dernier point ndax ñun moom danoo tardé woon alors <laughs> ci ci euh, euh, l' affaire euh, Pape Mamadou Seck gis nañu déglu nañ ko wax na mhm. également anam bi mu rëccee. Mhm. ak nañ doon wax que ni dafa siyee gri yi dem. weddi na ko ndax wax na ni ci ci jamono ji nga xamante ni moom la ñi ko doon garder di di di naan ataaya. ci la génn. Euh, daw ba jaar këram door a dem si nga xamante ni moom moo di euh, Daaru Karim tey jii loolu ba nga ko déggee ak euh, dellusi si gi ak nanu ko jàppee ci anam bi ban jàngat nga ci def. man ngeen tiit laa def. ah waaw bu dee suñu kaso yi dañuy jàpp bande comme nit ñu ko wone mhm. un élément aussi dangereux du force spéciale mhm. ku doy waar ku mënoon déstabiliser dëkk bi. Mhm. bu dee day nekk ci loxo main justice mën évadé nii. dem yor téléphone am yor même numéro munuñ ko localiser bay woo gelam mu koy fekk mhm. man bu huit jotee ma tëj sama bunt ne xam ne ñun moom ñun newatuñ ci sécurité réew mi maanaam réew mi moo raw rido may ga kon parce que des fois doo comprendre dañuy bëgg chargé nit sax ba dañuy yàq seen crédibilité mhm. affaire boobu bëri na ay zone d'ombre moo tax mënagoo ci sori mhm. naka la ñuy jàppee nit pavillon spécial du lii d'hôpital normal dañ leen di garder ñeneen dañ leen di mënate nga mun fa génn jóge pavillon ba mm. jaar fu normal mm-hmm. génn kenn gisu la kenn jàpp la ñu ne yaa ngi yore sa téléphone yaa ngi yore sa numéro mm. mais bëri na zone doomu daal loolu localiser et puis ñu woon localiser mënuñ la localiser ba yow sa soi-disant sa gel la ñu pisse mm-hmm. ba mu indi la ci ñoom et un évadé am ñaari jabar moom tal na ay gelantu ndaal bëri na lu ci leelu sama xel bàyyi ma seen dossier rek ba mu leer damay bañ procureur woo ma mu daal daal baal ma leen ko daal ba mu leer wax dëgg yàlla. alors euh, kon xanaa ñu tàggatoo Cheikh mm. euh, Omar euh, ba ba beneen yoon amoon nañu mbégte rek. dalal la si internet yi nee nañ waa Sénégal yàq nañ sa tur Cheikh Omar leen la tuddee. Cheikh publication yëpp naat. Cheikh Omar TikTok Cheikh Omar damay gis rek na lii moom liggéey ñoom soxnaay dal. <laughs> ah sama liggéey la. Ah, ah, ah, kon daal. <laughs> dinañ ko changé kon. <laughs> waaw gërëm rek xam nga fii moom suñu kër la. te mhm. waxtu bu nekk dañuy am mbégte ak plaisir bokk ak yow plateau bu am solo bi. nga ci mhm. def liggéey bu am solo. Mhm. ku nekk di ko rafetlu wax dëgg yàlla. ñu di la ci encouragé bu baax. di la masawu ci jébi ah. moom laa waroon tijjee. <laughs> ñoom chef. <laughs> ah policier bi dañ ko waroon gendarme plutôt dañ ko waroon dóor pétition. <laughs> ñu ñu jox ko pétition ah, xanaa waroon nañ ko jox pétition. dernier message bi daal mooy maa ngi koy lancé à l' endroit des jeunes sénégalais. nañ mm-hmm. dem jëli seen carte électeur. Mm-hmm. génn voté massivement jël seen destin en main. ñu ngi jëm ci bis yu. amam solo ci réew mi. Mhm. askanu Sénégal yàgg na wane ne askan bu mature la. askan bu am élévation la des fois sax day romb sax classe politique am. Mhm. léeg ñu nekk ci veille yoo xam ni dañuy tiit mhm. dëkk bi dana tax résultat yi luy xew mais à chaque fois rek buñ ci tollee sénégalais yi wane ni dëkk bu démocrate la. askan bu mature la. ñu leen di woo nañ génn dem jëli seen carte électeur yi voté massivement cohabitation mën na nekk ci dëkk bi. ñu permettre ñu contrôler l'action du gouvernement ci li def ci mandat bi di gërëm ñëpp lu dëng suñu di la lu baax kàttanu borom bi la ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous ci beneen émission Ultimatum waaw suba suba nga joxe rendez suba waaw pourquoi pas ah, suba la suba la. suba d'ailleurs suba fee suba la ban public <laughs> <laughs> suba moom fee waa aye. ban public. suba moom ban public mi ngi noonu alors jaajëfal ko bu baax yéen doon suivre également ñu ngi leen di remercier om si taw mu nekkoon si technique bi jaajëf kon mu nekkoon dernier numéro de la semaine euh, lundi dinañ revenir at ci ultimatum ak yeneen i gan fekk ñu daal di def élection yi di ñaan nag mu apaiser jaar yoon ba coow du ci rek jip ci kanam tuuti Zeyna Bamba dina ñëw ak équipe bam ci seen émission. bii bi leen di traiter kaa ci dëkk bi yëpp donc ci kanam tuuti lay doon jaa ngeen jëf